dalati leen ak jàmm ci li gën a fes ci xibaar yi ci site internet bi dañu koy dooree ak mbas mi sonal réewum Sénégal ca Touba Mbacké ginnaaw séddale wàllum dund gi daal dina fay jur ab coow lu rëy ñeel wàllum municipalité bi ak askan bi nga xamante ni ñoo yellool googu le dund ndaxte nege ni démb nag ca mairie bu Touba askanu Touba gépp dañaa génn dal di fay ran ngir mën a jot seen wàll ci ndimbal li nga xamante ni moom la ñu yellool waaye ca waxtu boobee rek at mbii mbaaloo mu nga cay am ndaxte lenn ci population bi ñu ngay addu ci micro suñu naataango ya nekk ca Sénégal di xamle rek ne ñoom amatuñu yaakaar ci chef de village yi rawatina lenn ci ay chef de quartier ndaxte mbirum yaama neex ak mbirum famille lañ koy doxalee daal di bàyyi néew di doole gi ginnaaw ca Touba Mbacke googee sax nag nga xamante ne rek ñu ngay joxoña baraamuk tuuma kii di maire ba di Abdou Ahad Ka ak ñamu àndal suñu sukkandikoo ci Omar fay di kenn ca ndaw ya doon addu moom nag li muy naqaru rek mooy ñu bàyyi néew di doole yëkkati ñi xamante ne nag seenub loxo jot na seenub parparloo waaye tamit di ko politiquer du samay kàddu Umar Faye moo ko yëkkee ginnaaw ba muy jàkkaarloog taskatu xibaar ya nekkee ci diwaanuk Sénégal ginnaaw séddaleb dund gi ñu daal di wax ci mbirum Serigne Modou Kara Mbacké Kara Mbacké mi nga xamante ne nag daal dina yëkki ay kàddu di xamle rek ne doomu jàngoro bi ak mbas meek coono gi mu jura réewum Sénégal naama ab virus boo xamante lenn ci ay scientifique ñoo ko saytu ba daal di koy gis moom mi Serigne Modou Kara mu ngay xamle ni mbas mi de mën na cee tegub loxo mu daal di wér du samay kàddu Kara moo dinay jàpp rek ne lépp lu jëm ci wàllum science kon Serigne Modou Kara mu ngay xam ne ni fépp fu mu teg tànkam doomu jàngoro gi mën na cee indi ay saafara du samay kàddu Kara moo ko xamle ginnaaw rek ba muy jàkkaarloo di xamle ne lenn ci ay scientifique seenub xam dafa ñeel jëm ci wàllum laboratoire waaye tamit daal di def ay analyse ngir saytuwaat bu baax a baax virus boobee nga xamante ne wàllante bi daal dinay gaaw loolu mu ngay xamle nag ne soxlawul benn yoon ñuy def ay test ngir am ay résultat moom Serigne Modou Kara fu mu teg tànkam mën naa maîtriser lii di doomi jàngoro bi ñu jógee ca diiwaanuk Touba Mbàkke ñëw ci diiwaanuk Dakar ginnaaw sous-préfet bu Dakar ba mu jëlee ab dogal daal di tëj fi nga xamante ne moom moo di ca marché Sandaga Jibi Jàllo daal di ne nag waxtu wi le rek nekkul waxtu boo xamante ne waxtu jaay ak jënd la waaye tamit taxaw di négocier ci voie publique bi nga xamante ne askan wee fa war di jaar ak dem ak ñu yëkki ay table daal di ko fay teg di fa dajaloo di fa amal marché Jibi Jàllo nag mu ngay xam ne ni jamono ji du jamono joo xamante dañuy négocier ak séq waxtaan waxtaan déedéet waaye rek ñi nga xamante ni ñoo teg ci kaw tali bi dañ leen fay jëlee te duñu ci xool lenn lu dul rek def seenub liggéey ngir askanub Sénégal gën a nekk ci seen wàllum wér-gi-yaram Djibi Diallo ginnaaw ba muy jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi la jël yooyu le di fay jëlee képp ku fay commerçant ba tey ci doomu jàngoro gi mbas mi nga xamante ni sonal na askanug Sénégal beneenug secteur boo xamante ni nag njortu nañ ni rek ne doomu jàngoro gi daal dina fay dugg ba indil fa askan wa ab tiitange gu méttee métti du fenn lu dul kërub liggéeyukaay gi ñuy woowee Dakar Dem Dikk Dakar Dem Dikk nag kenn ci liggéeykat ya dañaa njort ni dafa am doomu jàngoro boobee ci yaramam bu ñu sukkandikoo ci L'As Quotidien mi joxe boobule xibaar mu ngay xamle nag ne ndaw soosee jotoon naa séq nuyoo ak dugalanteek génnalante ak lenn ci ay doomu aadama yay liggéeyee ca kër ga loolee sax moo waral ba saa sile tembe rek daal dinañ koy jël yóbbu ko en quarantaine ngir saytu wàllum wér-gi-yaramam tey sàkku képp koo xamante ne amoon nga ay relation ak ndaw soosee nga daal di signalé wu ngir ñu mën a yaram waaye ci noonee waa L'As Quotidien ñu ngay xam ne nag ba ñu jokkoowee ak kii di président directeur général bu kër googee di maître Moussa Diop moom nag mu ngay xam ne ni du yëy yàb bi ci mbir mu ni mel waaye terewul benn yoon ba waa service d'hygiène daal di nañuy ñëw ca bërëbu liggéeykaay boobee daal di fay amal ay pompe ngir mën a rey doomu jàngoro bi ñeneen ñu def lu rëy ngir xeex doomu jàngoro bi du ñenn ñu dul amical bi liggéeyee ci brigade nationale des sapeurs pompiers ñoom ñi nga xamante ni jàmmaarloo ko mbas mi ci diiwaanuk Sénégal loolee sax moo waral ba ci lu tollook juróom-ñeenti téeméeru bouteille yu eau de javel waaye tamit lu tollook junni ak juróom-ñetti téeméer ak ay bouteille yoo xamante ne ay saabu liquide la lu tollook juróom-ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeenti ay flacon antiseptique yoo xamante ni nag daal dinañu koy jébbal boole ko ak ñaar téeméeri cache-nez yoo xamante ni nag daal dinañu koy jébbal jëwriñ gi yor wàllum kaaraange biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye mbir moomee boo ko xaymaa ci suñu ay koppar toll Lyon suñu sukkandikoo ci journal bi di laas moom mi joxe boobu de xibaar mu ngay xam ne nag ne mbir ma mu nga amee woon ci teewaayu kii di Mor Seck nekk commandant de la brigade nationale des sapeurs pompiers ak jëwriñ gi yor kaaraange biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye ngir ñu boole seenug doole daal di daan doomi jàngoro ji sonal réewum Sénégal am doomu jàngoro gi taxamoo fan nga ko fobee mu ngay wéy di def ay tànki kanam ci diiwaanuk Sénégal rawatina ci banlieue bi ginnaaw Kër Massar yëmbal noor fukk ak ñeenti cas yoo xamante ni jot na faa am ca waxtu boobee nag waral na ba préfet bu Pikine di Moustapha Ndiaye daa nay jël ci lu tolloo ko juróom-ñetti fukk ci ay doomu aadama daa di leen di quarantaine yëmbal mu daa di koy tëj ràpp ngir ñu wàññi seen wàllum dem ak dikk ndax ngir ñu xeex doomu jàngoro ji di coronavirus ginnaaw résultat yi nga xamante ni nag ñu nga ko doon béral nege ni tey mu daa di nekk ñeent fukk ak juróom-ñaareelu communiqué bi jëwriñ gi yor wàllum wér gi ak action sociale téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari test yañ doon amal juróom-ñaar daal di nañ ciy dellu si amee doomu jàngoro gi juróomi daal di nekk ay cas yoo xamante ni nag dañu ko wàllante ci seenu biir ñaar ya ca des rek nekkul leen lu dul ne dañaa am doomu jàngoro gi te xamuñu fan lañ ko jëlee ñeent ci ñoom daal di nañuy am ak bu ba fas yéenee génn ci hôpital saa si la tembe réewum Sénégal daal di nay toll ci ñetti téeméer ak ñeent fukk ak doomu aadama yu amee doomu jàngoro gi juróom ñett daal nañ ciy jëlee ab wér wér gi daal dinañ ciy génn àddina ka ca des ñu yóbbu ko ci tugal ci sàkku teefuk fameem téeméer ak ñeen fukk benn ñoo nekk saa sile tembe ci hôpital waaye ca waxtu boobee jëwriñ gi yor wàlluma wér-gi-yaram gi ak action sociale di Abdoulaye Diouf saar mu ngay xamle rek wàllante doomu jàngoro gi te xamoo ana fan nga ko dëggee mu ngay gën a wëy ci commune yi nga xamante ne lim na ko ci communiqué bi di Louga Ziguinchor Saint-Louis Touba Mbour Thiès Kër Massar Diamniadio Rufisque Pikine Thiaroye Gare Yeumbeul Sud mbaaw médina Gueule Tapée Fass Colobane plateau golfe sud Wakhinane Nimzatt Njaareem Limaamulaay Yoff Mermoz ak Caaroy Gaar du samay kàddu jëwriñ gi yox wàllum wér-gi-yaram ak action sociale di sàkku ci askanuk Sénégal ngir ñu gën a farataal seen wàllum wér-gi-yaram waaye tamit fépp fu ay mbooloo di dajee ñeel wàllum dem beeg dikk bi kenn ku ci nekk di fagaroo lii di gel antiseptique waaye tamit gën a takk rek seeni cache ngir ñu mën a xeex mbas mi ci réewum Sénégal